neex na neex na neex na neex na neex na neex na tu as des larmes aux yeux elle a des larmes aux yeux ah wayu way bi neex na waaw waaw waaw ba pare way bi mettiwul sentiment la noonu la waaw wayam yëpp sentiment la dama dégg dama dégg euh, euh, président di wax naan Assane lu mu woy rek day am groove wallaahi waaye ah, bi dafay am groove te mm-hmm. groove boobu da nga koy yëg. e moi j'ai aussi l'habitude de dire que. way bu amul sentiment. doo ko bëgg cest lu mu tar tar tar tar mu mbalax mbalax lu mu dansant dansant il i que ñu war dañu war a sentir sentiment bi. ñu ngi sentir sentiment bi et je sais mm. du way bii rek. Mm-hmm. ndax way yépp ci album bi bu ci nekk euh, am na am na sentiment te way bëggee la boo xamante ni dugg na ci histoire bi. Mm-hmm. waaw dëgg la parce que dafa euh, am. Euh, ndeysaan sama benn xarit xam nga booy woy woy mhm. pour mu am porté da koy féetale sa bopp mhm. euh, maanaam euh, histoire bi mooy dafa am benn xale bu jigéen boo xam ne dafa ma bëgg ba ma jaral ko lu ne ci àddina man tam ma bëgg ko lool mhm. mais moom gëmul ne man bëgg naa ko gëmu ko parce que maanaam maa ngi ko koy woon mais ni ma koy wone moom doyu ko léegi nag muy dem ci mbedd mi. di dégg ñu koy wax. léegi nag lañ koy wax yokk ko nag mu tax ba moom sama mbëggee ci moom mu am ci ay doute. moo tax euh, euh, ma ne ko euh, boo tëddee nga nelaw. dafa ndax sama xol bi non non maanaam dama dama. maanaam man maa jël man maa jël kii bi man ma féetewoo ko. Ah. parce que boo bëggee woy mu am porté da nga koy féetale sa bopp il faut nga sentir ko déjà avant yi nga mel ni man di déglu way foog ni waykat bi yow lay gaaru waale te dëgg la waa la yenn saa yi ngay déglu way voilà da ngay tiit ba foog ni yow kii yaa ma wooy donc <laughs> histoire bi def na ko histoire bi bi donc ku noonu la demee maanaam léegi nag euh, ma di ko won ne ko bëgg naa ko fu mbëggeel yem bëgg naa ko ba fu mbëggeel toll mais na bàyyi mbedd mi mmh. yàqkat yi ñi muy déglu mmh. na bàyyi itam affaire yu jaxasoo yi. waaw wax ak déglu de ku ko loolu moo jaxas xel mi. wax ak déglu loolu moo jaxas xel mi ba. wax ak déglu. voilà ku ko bàyyiwul. waaw mm. waxuma la jaxasoo jaxasoo sax. waaye li la gënal ngay ñàkk. maa lax loolu. ah donc histoire bi daal loolu la voilà. Ah, mu ngi noonu voilà jéem loolu mooy histoire bi. dëgg la de non seulement nit ñi wax rek la ñuy def te nopp amul kubee léegi nag boo ci boolee jël sa naqar ak sa mbëggeel fu ne nga koy waxtaane wala fu ne nga koy jéem a déglu ah. da ngay ñàkk lii la gënal dëgg la dëgg la ñu bëri ñàkk nañ ko ndax loolu waaw loolu nag dara jaru ko nag dara jaru ko voilà album bi fu ñu koy amee album bi euh, mu ngi euh, ci euh, Prince Art. ci Ngone moo koy distribuer. d' accord donc après xam naa dinañ leen jox point de vente yëpp. incha allah voilà voilà Assane bëgguñu la téye. bi laay ndeysaan. walaay bëgguñu la téye. ah waaw mais war nga noppalu ji war nga répéti ji war nga defi lu ne. parce que tey 16 heures bokk na ci bis yi mujj. waaw. ci accéléré. maa la ko parce que on accélère on accélère. on accélère on accélère on accélère on accélère. yaa ngi préparé on accélère on accélère on accélère on accélère war ko rek ayca ñu ne ayca leen on accélère on accélère on accélère on accélère on accélère on accélère on accélère on accélère on accélère on accélère on accélère on accélère eh, mais Assane. naam Kouthia dafa def ay roue ci ay dàllam. Ah, moo tax mu gën ñëw gaaw doy na waar de doy na waar Kouthia ay roue la def ci ay dàllam. Euh, Assane dama la bëggoon présenter keneen. waaw euh, dëgg-dëgg production bi ñu ngi may wax pour ma libérer la nga dem noppalu ji. waaw mais li des pour yeewu leen bi jeex bëreetul. waaw te dafa am keneen koo xamante ni dama bëgg mu ñëw toog fii. Euh, sama wet gis nga ma teg fii guitare. dëgg la gis nga guitare bi. alors xam nga xam nga Vieux Mac Faye. bu baax a baax. loo xam ci Vieux Mac Faye. professionnel la. Euh, polyvalent na. te itam li muy teg lépp ci yoon la ko teg. te itam musique bi muy def. Mhm. musique bu àdduna bi yëpp di mën a déglu la. Mhm. di àdduna bi yëpp war ko mën a consommer. alors moom tamit comme yow. Mhm. lu mu woy dafay am groove. dëgg la et c'est l'un des. Euh, euh, plus grand maître ci musique sénégalaise ah uh -huh. très respecté par les grands man damay faral di wax naan ku Youssou Ndour respecté wala Baaba Maal respecté la tu ah. te respectes mm. par rapport ak euh, professionnel bi nga doon ci way mm. donc il va venir tout de suite nous rejoindre sur ce plateau mm. juste permettre la prod ñu takkal ko micro am. Assane comme ça nga xool rek tuuti vieux mag. Ah. s'il te plaît toogal ak ñun rek. ah ñu rek ah. a xam nga nelaw gu ma de. sugu. <laughs> sugu waaw bu sugu ma nuyoog moom waaw. sugu. sugu ana sugu. mi sugu tàngalal ko café. <laughs> sugu jox ko mu naan. ana sugu waaw woo leen ma sugu noo ko defaral bu tàng bu am purit mu naan léegi te toog <laughs> en attendant ñu ndax euh, euh, suñu yëf euh. pare na alfi léegi foo toll affaire bi dang na donc du nga ko yëngal ci gaz bi ba mu nekk crème bu dang nii waaw regardez comme c'est beau et après tu fais quoi Euh, dama koy def ci muul bi. ok enfourné ko. ok noo koy muulee ma xool doo ñu woon moulage bi. Euh, doo koy sotti ci kii bi dama koy sotti en fait dafa dafa ah. xaw tàng. ah dafa tàng da ngay bàyyi mu sedd damay damay xaar sedd. ma def ko ci ci moule bi parce que pâte feuille pâte feuilletée la à base de beurre. su ma ko ci defee da koy seeyal. d'accord donc il faut que pâte bi euh, crème bi sedd. pâte bi sedd pour mu mën a mu mën a ànd. super super kon on te laisse nga defar sa baax. mu sedd nga fa nga nga nga booree. Mhm. ma ko xoolaat rek. fekk yow tax ngay rey Alphine moo ma jaaxal. <laughs> Alphine day rey rek Pape Cheikh. daf mel ni El Hadj pare na de. <laughs> allez ah, euh, donc euh, euh, ñu woo ko mu daal di ñëw. Vieux Mac Faye ah, euh, papa Assane mu